e eh, paw tey mer. li tax tey ma mer mooy lenn ñaar. moom ah. boo jullee dina la gërëm sa yaay gërëm say waajur ñaanu waajur lu tax daanu ak ñaanu kilifa ak ni nga fonkee say xarit ni nga fonkee say nit ak ni nga gëmee diine ak ni nga gëmee alxuraan a la dimbali amul kenn ku nekk ci lamb yi te sot la Modou Lo ñëpp la sot ñëpp la sot amul kenn kuy yore micro amul kenn kuy tëgg amul kenn kuy promoteur te xam naa ñu la sot barke salaam parce que yàq lay na de xam naa ñu la sot ay promoteur ñoo jëpp nag billaahi wallaahi wa taala te di ko ci youtube bi lii fola billaay lii du guerre lii du misti lii du mété lii du kii waaye liggéey ndey moo tax yow li la def ci saako yëpp lañ ko war a wërale sponsor yi ñiy tëgg lamb ñi seetaan làmb ñiy tëgg làmb ñi nekk ci làmb ñi nekk digg làmb ñi nekk ci suuf ci ñi doon xool suuf si ñi doon raayaate ñëpp kenn bokku la ci Modou Lo mais waykat làmb yi bokkuñu ci ñoo ci ëpp waykat làmb yi ci ëpp billaahi laa ilaaha illallaah moo ci làmb papis yaayam ñi mu àndal kese ko faral lool amul kenn ko faral moto ak supporter yi àdduna bépp bëgg sit sit Modou Lo sit daan Modou Lo mbëri nag dañ doon saraxee pour moo daanu am na loo ma ci wax de waaye loolu ñemee ko wax ci net de mbër yi dañ doon saraxe pour Modou daanu mbër yi dañ doon saraxe waaye Modou bu dee daanoo tey dootoo daanoo ko baat day tukki bu dee daanoo bii dootoo daanoo ti nit ñi ba soxor waaye alxuraan du morom dara caat barke sëñ Touba. moo tax sëriñ ayit sëriñ si ayit bu doon sëriñ yi daan Modou Lo kon Modou Modou Lo daan na ba daanaale seen waa kër wala kon ku mu jàkkaarloo waaye alxuraan ku ko sàggane wala koy foog ay caaxaan doon nit gisoo nga xam ne sëriñ si mënuñu dara sangoo dama sangoo tuppe sangoo dama sangoo kàddu sangoo dama sangoo buraake nga xam ne sëriñ ay ñu xam ko ay alxuraan rek ay xoolal moo doon tiim téléphone bi jàkk alxuraan laa ilaaha illallah alxuraan mooy moo nekk ci yaram bi moo nekk ci bopp bi bëggoon naa nga daanu man sax sonn naa la waaye alxuraan la tey nit looy ñaan ci àdduna te ñaanoo alxuraan doo dee sëriñ ci lii rek war naa yee sëriñ i nga xam ne sëriñ ci mun ñu alxuraan du ma rob <laughs> Pawlu Pawlu acum